bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum soppeek xarit yi salaamaaleykum fu doomi Sénégal mën a yeewoo ci àdduna bi ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay di la dalal ci kanamu télévision Futur Média bu loolu weesee ñoo ngee nuyu président directeur général mbooleem directeur ci biir kër gi ak képp koo xam ne yàlla dogal na nga fi xëy ñu ngi lay nuyu di la ñaanal kendal ak jàmm kendal ak jàmm ci ñi nga xam ni itam ñoom yàlla dogal ñu kontaan ci loolu itam ñuy sunu ay kilifa diine ak sunu ay kilifa aada ñu ngi leen di nuyu boole ci cofeel gu rëy macha allah ndax lu cofeel newul rek macha allah dafay xaw a doy waar waaye bu cofeel amee lu ne mën naa am ci diggante yi te lépp dafay rafet ñoo ngi leen di feddali suñu cofeel wax dëgg yàlla sopp leen loolu di leen wax ne rek euh, ñu ngee sàkku ci yéen ñaan waaye itam di leen ñaanal yàlla yéen mii kilifa diine yeeg kilifa aada yi yàlla na ngeen fi yàgg lool ci wér loolu duñ ci seppi mukk euh, duñ ci seppi mukk ñi nga xam ne ñooy waa bi bu ñu waxee loolu dafay dem ci suñu xarit monseigneur Benjamin Ndiaye moom itam yal na yàlla dolli ko jàmm dolli jàmm suñu mbokki catholique yi nga xam ne ñoom la ñu bokkal réew mi. bu loolu weesoo dinañu bàyyi xel ñi nga xam ne itam euh, caabi daf leen a féete gannaaw. ñu ngi leen di ziyaara bu baax a baax ndax saa bu nu toogee ci wareef rek macha allah xel dafay dem ci ñoom kon ñooñee tam ñu ngi leen di beral nuyoo bu baax di leen ñaanal yàlla na nu gaaw jóge ci bërëb yooyu bu nu fa jubee jógee lépp loo xam ne rek laal nañ ko yal na ci suñu borom euh, roof barke bu bare bare bare te nu yàgg fi lool ñoom itam macha allah ci jàmm ak teranga ñi nga xam ne itam jamono bi ñu toogee fii di def émission wareef dafa tombe ak ñu nekk ci seen ay lal euh, nekk ci hôpitaux yi cliniques yi ak dispensaires yi ñoo ngi leen di massalu coono bu baax a baax a baax macha allah di leen wax ne rek ñu ngi leen di ñaanal ñu wér gaaw ba dellu seen biir kër teg yàlla bañ a tëral kenn yàlla na ñu yàgg nekk ci jàmm yàgg ànd ak cofeel ànd ak cofeel wax naa ko ca njalbeen mooy lépp nuyu itam ñi nga xam ne ñooy xalifa généraux yi taxaw seen wet sukk di leen nemmeeku bu baax a baax a baax a baax ndax ñoom wax dëgg yàlla budul woon ñoom comme ni ñu koy waxee làmbaay ñaaw yàlla na seen taxawaay yàgg yàgg leen fi lool te wér yàgg noo gunge incha allah ànd mooy waral nit dem bàyyi keneen ka kenn dem bàyyi moroomam noonu lañ koy waxee ñi nga xam ne danoo baaxoo woon di ànd ak ñoom tey ñu nekk ci njëggalu sunu borom njëggal googu yal na ko sunu borom yokk ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax bërëb yooyee sunu ay maama nga fa sunuy wasilaa ngi fa sunuy soppee ngi fa ñu ngee ñaan yàlla rek yàlla na yàlla yërëm leen bu baax a baax a baax a baax macha allah euh, ajaratu mami Linguère euh, maa ngi lay ziyaara maa ngi lay dem waaye dina jox nag nuyoo bu mag nga jëmeel ma ko Touba dem seetil ma waa Ndiassane ak waa Tiwaawoon macha allah waa waa Cene ba Sekkeen kenn du ah, ñoom ñoom itam sunu ay soppe lañu ñu fàttali toujours saa ñu fi toogee rek saan ndeysaan mhm, mhm. Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké dafay dellu si waat ci sunu ay ñaan ñu ngee ñaan yàlla yàlla yërëm ko dolli ko leer sunu maam ci Tidiane si Al Maktoum ñoom itam ñu ngi koy ñaanal yàlla yërëm ko dolli ko leer ak mbooleem ku fa nekk mbokk yi yal na yàlla yàggal ñu fi nag ñun ci jàmm ak teranga ak lu rafet rek Diop maa ngi lay nuyu ñu ngi ci temu doom baay ma lay wax bismillah maa ngi lay fay moo taxit gis nga da nga waxtaanee rek gars yi commencé soppi seen jikko rek dëkk bi gën a taw mi ngi noonu baax moom daa sakkan Adja daf la leer ah nga ni dañoo soppi seen jikko ah dañoo commencé soppi rek yàlla bëgg ci ñoom indi leen ndox waaw léeg-léeg léeg dafa mel ni mag yi dañuy wax ne ñàkk taw bi mhm. dafay dafay dafa dafa dafa fekk mhm. am ay yëf yoo xam ne ay lëj-lëj la mhm. yu ñu war a lijjanti ci ñun defar ko mu gën a jub gën a rafet bu ko defee tam yàlla wàccee yërmandeem ah ma xam nga mag ñi dañ daan baawu naan waaw waaye xam nga ñun dañoo dem ba léegi yooyu yëpp dañ koo fàtte. waaw yenn yi dañ koo xeeb yenn yi dañ koo jombatee def yenn yi nit ñi gëmatuñ ko ak yooyu. Ah. xëy na loolu moo tax mais mag ñi bu ndox mi musaanata dañ daal baawu naan. sa maam yàlla na sut Nelson laa aw fan. ah fan yii de moom sama maag sama maam daal. nuyo nuyoo bàngoog. affaire bi daal yoru ko daal bàyyil ma door ma daan dooree rek kon dañuy door nañ daan dooree ne te jërëjëfati Cheikhul Khadim tey ëllëg sama maam yàlla na mag nen son Mandela tëpp koy jaloore di mbooleem kilifa diine kilifa aada yi di ñaanal sunu maam Cheikh Tidiane Al Maktoum yàlla yokku leeram taas ñu ci barkeem na lañ koy ñaanalee mbokkam ma xaritam ba Cheikh Sidi Al Mokhtar waaye noonu tam la ñuy ñaanalee sëriñ Mountakha Mbacké moom Cheikh Mouhamadou Bassirou mu yàgg fi lool te dañ koy séddale mbooleem sunu xalif généraux yi ndax ñoom ñooy kenong mbaar mi ñoo téye mbaar mi ba dara ñaaw yaay di yàlla na giseeg soppeem ba Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam kamara jibante boo yaa xajaa yàgg fi yaay na fi ak njaboot gi yëpp ñu ngi leen di ziar waaye noonu la ñuy ziaree suñu yaay Astu Jara di ziar suñu yaay Astu Seck yaay mère Ndoy ñu ngi leen di ziar bu wér a wér di nuyu suñu bàjjan Awa Diop yaay Issa Diop yaaba ak mbooleem suñu yaay yëpp ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar di leen delloowaat seen wàccuwaay bu gën a wér delluwaat nag di waxaat Eva béggati nañu mm-hmm. ndax wax dëgg yàlla am ni ngay déggee seede yu safaanu mm-hmm. noonu ngay déggee ay seede yu rafet a rafet a rafet wax dëgg yàlla am dafa am sànq ku ma woo mm-hmm. koo xamante ne moom itam day sama rakki bopp di Sooda Diop nekk fële ci cité Aline Sow ne ma gërëmal ma sama mag yi ma bokkal ndey ak baay li mu lu rafet li mu def ci suñuy doomu baay. Mhm. moo tax ma di ko gërëm muy Yacine jóob kon ni safaanu amee noonu la baax mhm. baax yi amee ci doomu baay waaw am nañu ciy seede ba sa yaram day daw. dëgg wax fa dëgg yàlla am comme suñu baay boobu Ousmane Lo li mu wax fi bërki mhm. démb. te xam naa ci lu leer ndax xam naa moom mooy léegi. kon daal yooyu rafet na nañ ci ñëpp jéem a roy rek mu gën a rafet. très bien. mangook Adja Linguère jërëjëf noonu la sa mbokk moomu ndeysaan Diop euh, gërëmee magam noonu la ñu njaga Paris Ndiaye yóndee moom itam mhm. ci magam muy Mbay Ndiaye asek na mhm. macha allah waxal na ko wax ju rafet nee na wax dëgg yàlla ñoom bi bàyyi demee ba tey ñoom moom la gis mooy taawu kër gi te kenn du ko laam-laame mhm. mama Kinouchka itam ñu ngi koy nuyu moom euh, euh, soxna Linguère liñ naan dis-moi qui tu fréquentes je te dirai qui tu es <laughs> xaritu ajaratu dégeen chimère boobu gisuma ko de mm-hmm. waaye dafa gisanteeg uh, imaam mm-hmm. ñu gisante màkk ma nga woon màkk mu jël cadeau bu bu bu xaw a doy waar daal jox ko imaam ni ko joxal ma Eva mm-hmm. ma ni ko waaw macha allah ah ah ku la seet nga am tuuti bu la ci dollilee eh. ah kooku baax rek ku baax rek ko mën doy baan di wax guddi maman Kinoushka mooy vrai ndawalu guddi ah. kenn ku ci nekk ci ñun li muy def ci sa njaboot moo ëpp sax li muy def ci ah. ci yow mm-hmm. te bu koy def du bëgg kenn yëg ko sant yàlla man sama sooda Mbàkke mais moo ci gën ni ko jërëjëf ni ko jërëjëf noonu la ah li président Abdou Diouf doon wax ku ah. def lu rëy am lu rëy noonu la mel xaw nga man par décembre damay dem damay dem sali ànd ak njaboot gi c'est vrai bi yoon bi passé ma dem sali ñu daje mun ma loo fi def man ko chaque décembre fii laay ñëw ak njaboot gi. d'accord mun ma soo fi dalatee hôtel dinaa la ba àdduna ak àllaaxira gàddu ma yóbbu këram. Mhm. ba bi ñuy ñibbisi. kon maanaam mën na maa dem këram man itam. waaw bien sûr boo duggee mbuur nga dem këram ay ca bisimilah bi baal nga yaatu na bari nii moom moom fii la bokk moom. macha allah macha allah ñëpp ay doom lañu waa kër lu waay def perto ku baax yàlla la gën a baax. nit ku baax la yàlla na ko yàlla fay. amiin yaa rabbal alamin kilifa yi ci réew mi yëpp. Mhm. ci jiital sunu sëriñ Cheikh Bassirou Abdou Khadr di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér tey waajal sunu sunu màggal gi di màggalu sëñ Abdou Khadr di le 13 ca Touba incha allah ñu tey woo jullit gi yëpp di ziar waa Pire Sañu Xoor sunu xalifa ba sëriñ Mansour Cissé di ziar sëriñ Maodo Cissé ak njaboot gi yëpp ak moom parent ji bi Diagne monsieur le maire ak Baye Bardo ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax ak ñëpp ñi nga xam ñi ngi seetaan rek soxna Eva très bien sama xel dafa dem ci soxna May Laat di di di ci Euh, dimbali ma mami maa ngi maa ngi fàtte ndeysaan danaa ci dikkaat léegi. am na soxna lu ma ci bëggoon am na soxna May la mu sëñ Abdou Karim mu baax mi tabaarakàlla macha allah maa ngi koy nuyu bu baax a baax. xam nga boo waxee soxna May yi da ngay daal dee nar dugg ci kër yëpp. macha allah ñoom ñëpp nag xam benn sox benn soxna May. dëgg la dëgg la saqiir la ak soxna May dëgg la dëgg la mm-hmm. sëñ Abdou Karim sunu sëriñ bu baax. bu ñuy ñaanal yal na yàlla dooli ko jàmm dooli ko wér macha allah mm-hmm. alors euh, Ndoye Bane luy buzz luy buzz. li buzz bari na de. Ah, may ma ci benn. may ma ci benn da ngaa dégg ma yox dara. ah déet dama xam ne yow. non waaw xam naa léegi may laaj ak actualité non actualité. amul ku ne du seetaan télé Sénégal. <laughs> Ah, lu xew. waa ji dañu ma euh, boo tu sais Ndoye Bane man du ma seetaan seen télé yi. ak seen rajo da ngeen a bari wax. d'accord et doo leen wax lu am fon solo. doo leen lu wax lu am njariñ. nu ko doon waxee nga ni euh, seen télé yi ak seen rajo yi da ngeen a bari wax. Hmm. da ngeen wax lii leen wóorul peut moo tax man RFI ay tf ak wax ay télé Ndakaaru ay xaw ma béyam xaw ma lan yooyu lay seetaan man waaw loolu day wax dëgg yàlla affaire yi moom kii la rek commande la rek fu la neex zappé su la kanamu ndooy baan gi neexul mën ngaa zappé kooku moom am nga ci droit ñu teg ci quelque temps waaw papaam réer ah papaam réer ñun ko li ma la yu yàggul de ci taw bee paase loolu taw bii paase nii rek bërki dem waaw ñun ko demal ci ndooy baan soo bëggee sa papa feeñ mu ñëw ni ma Tissé Ndoye Bane sama papa dafa réer <laughs> eh, yi ni mën naa ñëw ci yow man ko ah doo dem TF1 ak ak RFI demal TF1 ak RFI ñu seetal la ah. fii kenn du fi seete sa papa <laughs> taal sa moto dem gars yi ma jàpp ci man leen déedéet kii nee na duñ seetaan ñu dañuy mbelembele rek diñu mm. dimbale nañ na dem TF1 mm. seeti fa papaam mm. gars yi jàpp ba ma kii ma annoncé ko ci sama émission yi waaw papa ji feeñ da du papa papa ji da doon julli ji fajar ndek dafa naax réer ma nga feeñe kaas ba ñu indil ma ko ma gis paa paa bi ne damaa xiif ma yóbbu ko restaurant jëndal ko ginaar paa bi ni yi ginaar gi ma woo doom ji. ne ko bon ñu duñu TF1 duñu RFI. mais vraiment sa papa feeñ ne mi ngi nii toog ñëwal jël si ko. mu ne la lan mun ma bis ni tey kay bàyyi naa bàyyi naa TF1 RFI. gis naa ni yéen leen gën a gaaw. macha allah ah. ndeysaan ñu ngi koy nuyu bu baax ñu ngi koy nuyu bu baax moom itam yàlla na yàlla yokk ko jàmm macha allah. consommer local dafa baax. consom kon bokk consommons local et loolu bu ñu ko waxee mbokk yi ci sens yëpp la na ñuy jënd loo xam ne daal dëgg-dëgg ci réew mi la ñu koy defaree. bu ko defee wàlli artisanat du du sooxee wax dëgg yàlla day jëm kanam. ah ñu leen di fàttali ne nag euh, mbokk yi nag euh, thème bi nee nañu luy luy ay dina di jàmbat très bien luy ay di jàmbat. ñu doon waxtaanee doom baay diggante doomu baay ak moroomam. muy loo xam ne ca njalbeen wax nañ ko dafa waroon gën a rafet dafa mm-hmm. waroon defar yi nga xam ne mm-hmm. moo jekk di dafa waroon lépp loo xam ne rek dafay demee neneen nu ñu bëggul diggante doom baay war na koo mën a defar ba mu rafet masha Allah am na fi sax am na fi ndaxam waaye bu ñu dee waxtaan dañuy waxtaan pour ñi nga xam ne dañoo mel neneen nu ñu mm-hmm. soppul ñoo ñu mën a defaraat seen toogaay ndax nga bokk ak nit ki benn geño bokk ak nit ki benn baay te bu la séenee sax macha allah di bëgg a dee. Mm-hmm. nga bokk ak nit ki benn baay lépp looy dégg lu ñaaw ci moom lay jóge nga bokk ak nit ki benn baay ndeyam may ko sax jàmm ju mu la defalee ndax yàlla dafa def moom moo la ëppale waaye ka nga xam ne mooy waajuram taxawu taxawaay boo xam ne dafa dafa doy waar lool bokk nit ki benn baay lépp loo xam ne rek bàyyi doon na ko yaakaar ba bàyyi leen fi ba mu wonee gannaaw lépp ngeen ñaawal ko mm-hmm. yàgg yàgg da ngeen ko fekki daf ñuy neex rek ñu ne suba amul waaye ku ne xam na ne wax dëgg yàlla ku ne tey di nga wax suba kon boog ubbil nañ leen suñu ay antenne dañ cee ànd nag ak ñi nga xam ne ñooy waa samoo saf ku ci woote itam dinañ la may carton yu saabu bu ma waxee loolu xam naa ne ajaratu kinneloo ma nga commencé jël chiffre yi di tàppe naan day dugg par force kon boog soxna Daba Gueye itam ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ñu suñu ñaari yaay lañu ajaratu maamu ànd xam naa ne bàyyi na doomam ji fii laa koy waxee tele bu ma bàyyi yaay àdduna jaxasoo rek <laughs> ay ca mami Lidiane ñu ngi lay wax bi simila bismillah wallaay ndeysaan xam nga li nga wax rek moo ci gën a neex mhm. mooy que day loo xamante ne dafa waroon a rafet mhm. te li nga xam ne bu amee rafet bu ñàkkee rek day ñaaw. dëgg kon nañu ci dellu siwaat toogaat ci xalaataat yi mais nag bi ma ci gën a tiital mooy. Mhm. doomu baay bi nga xamante ne nii lu ñaaw loo dégg ci sa àdduna moo la ko wax. Hmm? te Ndoye dafa wax lu yëngal sama sama xel ak sama xol barki dem ba tey. Mhm. mooy que Sénégal ni ñuy wàllee bañe. Mhm. moo metti Sénégal dañuy ànd ak yow di la xarable sa mbokk te xamuñu loo seq ak moom. Eva lay benn pàq la ku weet yóbbu. gis nga ki njëkk a ñëw ci yow wax la ne la diw lii la ma def. Mm. laaj ko moom lu mu def diw. Mm-hmm. mais malheureusement Sénégal da ngay toog. Mm-hmm. nekk ci sa leneen man ma ñëw fekk si la. ne la ah man de samay mbokk def nañ ma lii. Mm-hmm. man sama doomu baay man rek la bañ. sama doom baay dafa mënta dimbaliw ma sama doom baay dafa def lii dafa def lii. yow nga wëlbatiku yow mel ne comme yow damaa àndoon ak yow sama doomu baay toroxal ma yow boo demee di ko nettali jiwaat day mel ne yaa ko fekkee. danga naan maa ko fekkee keroog ba ko doom baayam ji di toroxal ba mu xewlee te doom baayam ji taxawu ca ba mu amee soxla doom baayam ji taxawu ca ki nga ko wax dem waxaat ko keneen dem waxaat ko keneen yàlla bu mu nekk nag nit bu siiw wala nit bu am daraja ci réew mi wala dara dañuy toog sax nga génn télé ñu naan ni ma ko bañee ay doomi baayam dee nga fee di sonn te pourtant dimbaliwu leen te mhm. xamuñu lan moo doxoon seen diggante wala xamuñu ban problème moo ci nekk comme li Ndoye Bane wax itam daf ci am ñoo xamante ne Eva dañuy sakk jëf boo leen mayoon milliard dañ koy denc romb keneen di ko ñaan dërëm ndoy baan am na ko maire bu mu a jëlee ci benn station fii ci côté Castor bi doom ja daa yor lu dul jeex mais maire bi day dem taxaw ci station bi ku ko romb mun na damaa xiif damaa mar damaa yaay diw donc dafa dem ba dañuy yàqante yàqante boo xamante ne <laughs> dara àdduna waaye ko dinaa la mais man bi ma ci gën a ñor mooy nit ñi nañu mbaanu ci bokk jàmbur yi ndax ñoo koy tas ah macha allah kon bokk mandute war na ku ne li may def kay xanaa mooy gannaaw dañu baaxoo di ànd ak euh, kinne libaas ak libaas boole ci waa kër aram jàppale dañ leen di ne salaamaaleykum jërë ngeen jëf mbokki téléspectateurs yi ñu dellu si waat ci seen plateau wareef ñu ngi nuyu bu baax a baax waa INAYA waa INAYA INAYA institut ak Abel tatouage notre cher frère ñu ngi koy wax jërëjëf waaye nag euh, li ngeen faaw dinañ ñu nuyu waa Caafura mhm. defe naa Caafura la ma nga bokk ca département Mbour am nañ fa xarit bu ñuy wax Fatou mhm. ñu ngi koy nuyu bu baax euh, Ndoye Bane ñu ngi doon waxtaane diggante doom baay ak doom baay euh, léeg-léeg dafa dafay am ay yëf yu doy waar yu ci am. kii nee na moom doom baayam ba ñu nekkee xale ba ñuy nekk mag ñoom ñoo doon ànd. waaye bi ñu nekkee mag dafa mel ni keneen la gis koo xam ne wuute na ak ki mu bokkaloon benn kër nee na li ci nekk yëpp sax mënuñu ko expliquer mais bés bu yàlla defee ñu jàkkaarloog moom dinañu nettali ne wax dëgg yàlla yi ko dal ci àdduna te mu yu metti yëpp doom bàyyee ko ko teg non non c'est vrai c'est que c'est affaire dafa bari di nga am sa doomu bàyyi tey jii ngeen mm. màggandoo defandoo yëpp mm. muy góor walla muy jigéen euh, teraanga dab dab ko mu beew mm-hmm. des fois du du du des fois du toujours la ñuy tooñ borom alali de. ñi nga xam dañu am wërsëg des fois mhm. ina iñaanewul leen de. Mhm. li leen da li leen maanaam li leen seen mbokk yi wax am na ci ñoo xam li leen di wax dëgg la. Mhm. maanaam da ngaa beew soppiku. takk jabar sa jabar xeeb leen. say doom xeeb leen. demoo ci nit ñi. doo doo seet say doomu baay. doo dox mbokk ba pare bëgg ñu respecté la. loolu mënul nekk. xam nga yaa ngi ñii tey nit. munoo barale barale barale barale barale ba ëppale sa ëppale sa waa dëkk wala sa saw xeet loo bari bari alal alal benn alal munoo bari alal ba ba toll fi loo noo xam ne saw ba saw xeet mm-hmm. munoo rëy ba ëpp sam dëkk munoo rëy ba ëpp sam mm, réew naa wax ji xam nga mm-hmm. soo deewee yaag sa alal ak say otoog yëpp lañuy teg fee ñooño nga xeeboon ñoo lay denc da gis nag ay doomu baay yoo xam ne yàlla da leen di may wërsëg ñu bew Uh-huh. xeeb seenu askan. très bien xeeb seeni mbokk moo tax seeni doom bàyyi ñoom téye seen bopp. Uh-huh. jëlal ma ki ci ligne bi nga dellu si waat ci yow. allo. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. na ngeen def. ñu ngi bu baax. maa ngi leen di nuyu bu baax. ñu ngi lay fay. waaw crédit bi bëriwul nag xaaral ma wax balaa moo coupé. Mm-hmm. man de macha allah kenn sama doom bàyyi. Mm-hmm. ñooñu uuf buñ juddoo gisuñu bàyyi ñoom lañ gis ñoom ñooy mag. te bàyyi rek laa bokk ak ñoom nag. Mhm. dëgg fa yàlla. ndax seen yaay mooy aaw sama yaay di ñaareel. Mhm. ñun ay xale lañ nag gisuñu bàyyi. Mhm. ñoom ñoo ñu taxaw. taxaw bu ñu taxaw nag xam naa sama baab bu doon dund bu doon dund sax du ko mën. bëgg nañu. man dama defe ne doomu mbaay bu ñu amee jafe-jafe seen yaay yi la. ak dëgg. si seen yaay yi la ndax yaay bu ñu juboo. xale yi bu ñu ñëwee dinañ jubóo waaye bu ñu yaay bu ñu nekkee foofu du xuloo man nag sama yaay ak sama tànk boo duggee ci biir kër gi doo xam doomam yi. Mhm, macha allah doom yi doo leen xàmmee sax. Mhm. sama tànk danga may fekk ma toog ci kaw ay tànkam. Mhm. da ngay foog ne moo ma jur sax te fekk du sama yaay. sama yaay da koy tooñ wàccal danga may tooñ wàccal ci kaw tànk kii kii jëm na mag. mënatu la uuf. ut na la ba nga nekkee xale ba léegi léegi mag na mhm. mu ne ko bàyyi ko kii bàyyi moo ma ko dénk mhm. lu ma lu ma def rek neex na ma dañu jiboo jiboo ba xamante ne ne mhm, macha allah man dama defe ne doom bàyyi bu ñu amee problème rek seen yaay la baax yaay yi ñoo war a fexe ba jiboo xale yi war a xale yi mën a nekk bu yaay yi jiboo rek macha allah ok maa jërëjëf kontaan nañu lool ci sa témoignage balaa ma dellu ci ndoy baan mhm. liñ naan léegi saay loo fekkee mën nga koo nettali. Mhm. ndax dana am ñu ci jàngee lu bëri sama sama rakk sumbulu bàcc li mhm. dafa am jamono may def elles sont toutes dem dugg këram. benn seetlu bu ma neex la rek woon maa ngi koy nuyu bu baax. macha allah xale bu yaru bu amee jot rek li muy njëkk def mooy di ma woo. di ma seet maa ngi dugg mi ngay wax ak yaayam ndekete du yaayam. tantaam la maanaam wujj yaayam mhm. ma nga naan ma Eva daal man dama jaaxle ñaari maire yi dama xëy saa bu ma xëyee dama xam nga comédienne la dama leen a bëgg a jaxase ne ko waaye yow tante gisuloo sam tele bu bees bi mu ñëw dugal ko ci néegu kee mm. yow gisoo ko kooku ne yow bàyyi ma mm. mu ne ko yow gisoo sam papa ni muy naxee kee di la bàyyi <laughs> et yooyu xeetu kalante yooyu moo war a am ci biir kër yi et depuis loolu dama koy nettali ma ne xoolal rek bu yaay yi jubawul woon du doom mooy ñëw bay nekk ci diggante yi café ñaari yaay yi macha allah muy loo xam ne lu rafet la lu mm-hmm. lu mm-hmm. gi nga lu am solo la comme ni mu waxee woon rek da nekk bokk ci aw askan mm-hmm. yàlla may la wërsëg nga sa askan xeeb sa sa say doomu baay. dëgg la xeeb sax ñi nga bokkal ndey ak baay. Ah, des fois euh, mu jóge ci yaay yi. mais des fois mu jóge ci sa jabar. yàlla may la wërsëg nga nekk am sa kër et tout mais sa doomu baay su la seet see sa jabar xatal ko. waaw waaw waaw. dàq ko teg ko ci baa xam nga du ko du ko du ko ubbil. Mhm. kooku su am meleen doy baan dootu fa ñëwati. dëgg la. xam nga yooyu dina indi ay ay problème ci seen. ci ci ci te léegi boo gës boo gëstuwul bu baax danga naan jëkkëram a ko yoon yónni moo ne jëkkër yónni. yónni ko comportement bokkul c'est ça mais tamit jëkkër yi tamit da ko cee bàyyi. léegi saay ñun jigéen. tey jii man du ko yëg de. d'accord d'accord naa jëkkër mën na ko bañ a yëg. Hmm, mais tey jii. Mhm. ni nga tey ni nga ni nga jàppee say doomu baay. wala ni nga jàppe sa famille. Mhm. sa jabar su ñëwee noonu lay jàppee sa famille. li ma mi naan soo jëlee sa yaay teg ca ca ca ca ca mbalit ma mhm. su sa jabar ñëwee da koy jëlee ca mbalit ba yóbbu ko mbëbës dëgg say doomu baay soo leen jëlee teg ko teg leen ca mbalit ma mhm. sa jabar su ñëwee day jël sa doomu sa doomu baay yooyu dugal ci oto mbalit ba ñu yóbbaale leen ba dafay jabar bu xamul àdduna sax doy baax non non c'est ndax jéeg itam war nga xam àdduna mm. waa am na lu mu doy di wax lu ma dégg bu baax jëlal téléphone bi nga dellu si waat wax salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam soxna su baax si noo def soxna ay baax naam wax Mhm. allo. allo mami wuyu ko. mami. soxla su baax si. mami Linguère. waaw. mi ngi wax na def. maa ngi sant yàlla bu xanaa bëgg leen rek sopp leen. ñun ñoo la di leen gërëm di leen ñaanal. macha allah amiin yaa rabbi. ci liggéey bi rafet bi ngeen di def ci rajo bi. ci télé bi jërëjëf. man de. Mhm. su ngeen waxee doomu baay dafa mel ni man ngeen waxal. Mhm. macha allah dégg doomu baay yoo xam ne faale wuñ la. Mm-hmm. Mm-hmm. toppatoo wuñ la te yaa leen boot yooyu laa am man. Mm-hmm. yaa leen boot am naa. si am dem na sax ba am na ci ku ma yóbbu sax gendarmerie. yóbbu gendarmerie. ci suñu papa rek. yoo xam ne dañ ma ko jaay. yóbbu na ma ci gendarmerie. maa leen boot nag. daan leen bàccali laytaay waaye bi ñu màggee xamatuñ ma ñeneen lañu xam. boo leen ne ku ngeen gën a bañ si mu ne man la ñuy wax. waaye man damaa doyloo yàlla ak yeneen. loolu rek kay sant yàlla. Mm-hmm. di gërëm sama ñaari way jur. ndax li tax ma sant yàlla mooy comme ñoom damaa xam fi ñu toll ci man may sanaluma leen ci dara. Mm-hmm. loolu amoon lu may wax di leen ñaanal nag di leen gërëm. jërëjëf jërëjëf jërëjëf macha allah xam nga dab na fi kër yi dañoo xumb mami nga ni da ngay da ngay dégg fi ndoy baan doon waxee boo nee kër yi dañoo xumb damay xam ne sa baaxaay ngay waxee yow kër yi toj caaye la woon ñor ga dagg na gis nga. <laughs> kooku de àdduna bu tukki la nga ni ca. bu doon caaye la dañ ñor gee. àdduna àdduna tukki na xam nga moom dafa ñëw fekk si. fi ma dégg man fi ndooy doon waxee. waaw moom mu ñëw waxee foofu. xam nga Eva koo dégg mu naan la li ma yor ay caaxaan yóbbu. dafa mel ni dafa am keneen ci ligne bi. nee naa la woon di nga dégg ba dégg loo mos sa dégg. est salaamaaleykum wa rahmatulah. allo allo. Ah, xam nga. koo dégg mu naan la li ma yor ay caaxaan du ko yóbbu. Mm. li mu njëkkoon a yor ay caaxaan na ko fépp. Mm. gis nga yow yaay njëkk a xeeb li nga yor. Mm-hmm. comme li ndooy di wax. am na ci jigéen ñoo xam ne ñoom ñoo safaanu bay def yenn ci kër gi te waaj yéegu ko. mais am na ci waajoo xamante ne tamit moom la alal dab. dama lay wax ne ñeenti F yeek T bi kum dugg ci sa famille ay dal na la. FFFT da gis ku falu fuuy fàtte. waaye heureusement day folleeku torox ba ne tot. nga gis nag mu toog ci fuuy fàtte folleeku torox ba ne toot day toog ci biir famille wam day toog ci biir jabaram mm. ne ko non sama doomu bàyyi mën na ko wax sax sama doomu nday nawloowu ma leen faalewu ma leen ñii dañoo yabaatee lu leen mais du fi jeex dëgg lu leen tee dem wuti mm. sa doomu bàyyi ñëw di la seet yàlla mënee la gan ñu téye ko ca gardien ba nga tabax kër ba mu ne booy mm-hmm. teg ko ci baamu yem di cee toog suba ba ngoon jot rafetul bureau bi artiste bu ñëw dugg. bu laal sama dossier bi. woykat bu ñëw dugg. nit ku baax nit keneen ku safaanu ku ñëw dugg. di ko romb moom mi bokk ak yow benn deret. rafetu nga daaj ko ci saal d'attente mu toog suba ba ngoon jot. rafetul nga génn romb ko muy wax ak yow nga taalal ko loxo ne ko li nga may wax wax ko secrétaire bi. ah kooku jooju doomu baay mën nga bëgg yow mu bëgg la. jooju doomu baay moom joxoo ko benn wor ma. mu ñëw sa kër xew am xew wala mu feebar wala dara nga faj ko ba muy ñibbi nga yëkkati 10 000 francs jox sa jabar ne ko demal jox ko 10 000 ñi dañoo soof te mën a ñaan bu sa jabar dikkee bu koy jox da koy sànni ci ay bët. waa war koo may xarum tabaski jël ko jox ko sa jabar wala ngay laaj sa jabar ndigal li ndooy baan di wax mbokk day am nu muy demee la nga cay def yaay ji la jur bu ko yëg jabar ja nga takk bu mu ko yëg jëkkër ja ngay sëyal bu mu ko yëg mm-hmm. dem na tamit ba ci côté ñun jigéen ñi mm-hmm. li nga jotee ki nga bokkal ndey ak baay mm-hmm. li nga jotee ki nga bokkal baay boo ca mënta nettali sa jëkkër lu rafet bu ko ci wax lu ñaaw. dëgg ex jëkkër mën na am. soo ko ci waxee lu ñaaw sax du la respecté. mais ex doomi ndey ak ex doomi baay musta am fenn. nit day xam àdduna. gis nga man déggoo ma naan mami bu laal naan koo jubóol tey ëllëg mën ngaa xuloog moom. koo xulool tey mën ngaa ëllëg ngeen jubóo lu waay di def def ko naan ma naan ko bu laal sama sama dossier bi. sa dossier bi lan la ngóor ngóor bës dama fa yoroon dossier bu tàng mm-hmm. jër noo ko mujjee foo ko teg benn joo xam ni mi ngi ci dëkk bi bon ci li ñuy wooye kilifa ci dëkk bi daal ci la bokk su ma ko doo tegoon ci télé bi wala ci rajo bi tey jii ñu bari sikk ma parce que dañoo nekk ci réew moo xam ni wax fi dëgg déli la am na benn philosophe boo xoon ni diir la vérité déli la fii ci réew mi Sénégal soo waxee dëgg rek doon noonu ñëpp mhm. soo fenee di seen waay day fenkat nga seen gaañ ngay doon hmm? dëgg daal lañuy ñuy bañ ko ko wax mhm. man ma dem man xam nga man samay affaire mhm. du wax waxu mbedd damay dem ci sur le terrain fa mbir ma ne. bi ma ko déggee maa dem ba ca kër ndaw sa. toog ak ndaw si ak jëkkëram. gis ko ni mu tooge. yaram wi yépp ay góom la. yaram yi laax lépp bàyyiwuma fi fenn. yaram bi li ko dagge ci diggu bopp ba ci suuf lépp ay góom la. depuis ba ma nekkee Walfadjri la ndaw si daan ñëw di ma seet si. ñu koy jàppale tey suba tey suba tey suba mais kër bi ñu ma wooloo. moom ñëwul dañ ma woolu ma dem fa. fekk ko ci biir néegam ci saal bi mu toog bi ma waree yaram bi damaa tiit mën ko yow diw nga ni diw mooy salal la mun ma ñoo bokk benn papa bokk benn kër santam laa sant maay magam <laughs> man quoi léegi est mun moo jàppale ma jabaram musuma booleeg jabaram jabaram jox ma cinquante mille xaw ma wax ni ma Cheikh Amar moo ma jàppale woon may ma deux cent mille sax ma ma tàmbalee faju yàlla yàlla fay ko ndaw si ngént sama ngénte bi sax ñëw na seet ñëw na ca ngént la parce que ah. foofu mel ni commencé naa tane parce que waa koñ waa koñ ba ñoo koy jàppale mhm. macha waaye naka ngay nekk ci dëkk am mag ju mel noonu xam ma rakk ju mel noonu mu ne ci dëkk bi ni day jàppale ay nit affaire yooyu ba pare sa rakk ne fi sa mag ne fi mënoo ko sax jël ko yóbbu ko hôpital li koy faj matul sax million nga jàppale ko hmm. bi ma ko ne naree teg ay kilifaam woon ni ma dimbali ñu rek bul ko teg man leen ginnaaw yéen a ma ñaan ni ma bul ko teg faj leen ko yéen waaw yéen ñi ma ñaan. ne bul ko teg na ngeen ko faji mm-hmm. comme nag te ñoom gis sa ñaari yaay lu ñu mënti jote mm-hmm. sa yoon nekku seen yoon nekku ci bu mm-hmm. fekkee yaay mag wala yaay rak munoo tey ji mi ngi mel ni tey ji man ndoy baan ma gis sama mag bu jigéen bee ndeebatoo nekk fële ci Sébikotane di fa am di am ay problème mu junni wala di am ay problème mu ñaari junni wala muy feebar du mën a faju loolu sama gàcce la man mi macha allah loolu gàcce la di mhm. mais loolu nag su mu su fekkee da nga am sa doomu baay bu góor wala bu jigéen mu nekk ci ay tolof tolof nga xam ko mën koo faj defoo ko boo jekkoo nit ki war koo rey sax nga la may ko mu naan la ne dafa mar te loolu nga may ko sax mu naan lu ma ci a naqari li ndooy di wax nii waaw gis nga genre cas yooyu dafa bari ci dëkk bi ah xam naa xam naa dafa di xos ci dëkk bi ah, genre yooyu nag gis nga li ma ci gën a metti bu ñu deewee ñooy dàqub dëj waaw tey ji ndaw soosu tey doomi baay baay dem jënd nag ya gën a rëy seeraas Eh, eh, il faut ñu ñu wax ko dañu dafa fekk sax ñu tem doomu bàyyi mais doomu ndey sax yaa. yaa beaucoup de complications yoo xam ne dafay am ci ci ci ci ci kër da ngay gis koo dafa complexé par nature parce que nangam la bokk diw bokkul ak moom nangam et yooyu dafa am ay problème ci biir kër yi doomu ndey ak doomu bàyyi nga xam dara du ko faj moom ci méttit la dëkk bu njëkkoon la affaire bi yemoon ci doomu bàyyi rek ak doomu ndey mais léegi bokk ndey ak bàyyi doomu ndey ak doomu bàyyi ci yem nit ñi sa mbokk day am problème fee. Mm-hmm. nga yoru ko mën koo régler doo ko régler. Mm-hmm. te ñu lay digle ngay régler yeneen i kaa ci mbedd mi. Mm-hmm. kooku nga sa mbokk moom mu faatu nga jël dëj ba di ko di di ko di ko. dëgg la beneen bi di topp mooy xam nga su mi balaa may ñëw ci yow. bu ma taxawee ci li nga ne bokk rek bàyyi mais daf ci am problème yoo xam ne mbokk yi daf ñuy dee dal ci sunu kër yi. dañ caa xajal ay nit. mami tamit dëgg maa ngi la koy wax dem dañ ci xajal ay nit ba nga xam ne yow danga nam ma dem du jubag sa doomi baay dootoo ko mën parce que taxaw nga ci bërëb yu bare bare bare émettre ci moom ay jugement de valeur yoo xam ne ruusa ci nga ñu gis la nga ànd ak moom moo tax ñuy wax ne booy wax ci nit ki wax naa ko sànq waxal ca moom nànk mhm. ndax ëllëg du añ du reer te dañu koy sédd mami bismillah waaw mbokk waaw moo amatul valeur ci dëkk bi. Mm-hmm. waaye yàlla na am valeur waaye. lu oh. lu ngan na ngi bëgg a ñàkk valeur. mbokk lu am valeur a ngi bëgg ñàkk valeur. réew moo xam ni. Mm-hmm. li lay mbéyti sa mbokk la koy teg. dëgg mbokk bu doyee bi lan la mbokk bu doyee mbokk mënul weesu doomu baay. dëgg la mbokk mënul weesu doomu ndey. axankay ah, mbokk mënul weesu doomu ndajaay. Mm-hmm. ñett ñooñu ñoo lay def lu la metti. keneen ku la koy def. dëgg. sa mbokk mbokk moom yii la mhm. doomu ndey mhm. doomu baay mhm. ngeen bokk ndey ak baay wala sa doomu nijaay wala sa doomu bàjjen ñooñu ñooñ soo xoolee ñi lay def lu métti ci réew mi ñooñu lay doon d'accord nga feebar amoo loo fajoo sa doomu baay ne ci dëkk bi di lëmbe wala say doomi baay nga xam ne ku nekk defoon 1000 francs nga wér dëgg la ñu toog di la seetaan ba nga dee ñu dajaloo nag sol seen véeri ñuul mm-hmm. jóbbal la suñu borom rey ay nag jël seen jaxal ñaanal la ñaari fan fàttale nekk ci leneen lu ñu nekk mami tey nga jël téléphone bi ba noppi di salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah sëriñ bu baax bi ñu ngi lay jox sa wàccuwaay soxna ma Linguère waa ñu ngi leen bu baax ñu ngi lay delloo ziar bu wér jërëjëf jërëjëf. ak Mouhamadou Ndoye Ba. jaajëf sëñ bi ñu ngi lay ziar. ñu leen di déggee bu baax si émission bu am solo bi. kontaan nañ ci émission bu baax. ñoo gën a kontaan. doom bàyyi moom am na yu baax a baax a baax a baax. Mm-hmm. man de ala dogal na am naa yu baax a baax. ndeysaan. yu baax trop sax. macha allah. waaye nag adduna bu fi baaxee rek am ñu doy waar. Mhm. ak ah, kay dëgg. waaw ñu ngi leen di ñaar yàlla teg leen ci yoon rek. amiin yaa rabbal aalamiin. ñu koy baan di waxee ñu bëri seen kër la ci way jur yi la quoi. parents mhm, mhm. yi góor. ñoo ñooy am ay jabar fii kay kenn bu ko defee nag ñeneen ñi du leen neex. gi la. góor moo ko war a defar. dëgg la. doom bàyyi man de fi ma juddoo Saalum. ay baykat leen waaye man fàttalikoo moom fu sama papa di demee tool taaw bu góoram bi. macha allah moo jiite liggéey ba keroog sama papa di dugg ci bàmmeel. macha allah est-ce que est na. amoon na ñeent soxna te ñëpp àndoon nekk benn njël. Mm-hmm. est-ce que. bu ko defee rek eh, eh, Efa Traoré dama ko sopp moom sama. soppe piir la. ndeysaan ndeysaan jërëjëf. dañoo bokk dañoo bokk yi sopp mu maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. macha allah radiyallahu taala anhu. daay moom kay bu nuyoo rek sama xol day tedd. alhamdulilah. sopp nga ko bari koy ñaanal fan wu gudd ak wér. amiin amiin Baye amiin. baan ni maam yi seen yéene ci Sénégal rëy na trop. wallaay wallaay. sopp nga ko mën a ku teeroo ganu màkk. bu mën a teeru gan ah, amiin jërëjëf. yi daal dama leen di na yàlla sàmm. sopp nga ko mën a teeru ku jóge Màkka. waaw ñu ngi leen di ziar bu baax. allah jërëjëf jërëjëf sopp nga ko jërëjëf ko mm. mën a teeru alaaji waay. Euh, man waaye man li ma jaaxal mooy moom waxaguñu nu mu sànnee jamra ca minnam ba tey de bu fekkee ne nag dafa yaakaar ne mën naa wax ba rëcc ci samay wax wareef suba nag mooy dernier jour am wareef dina ma ko wax wareef mooy lan luy luy wareef wareef def sa wareef def sa wareef waaw ah, léegi def nañ suñ wareef ah ok mettiwul ah. xam nga gis nga ñi ngi te gis nga li ma ci naqadi xam ngeen lan la mbokk yi kii day bind kii maas six ak neuf la <laughs> après nga signé ci suuf <laughs> validé ko xam nga xam nga sant yàlla Eva mm-hmm. dooy ngi wax la am solo mm-hmm. sa mbokk da ngay bokk ak moom sa yéene bokk ak moom say pexe dëgg loo am boo ko tanee séddu ko ca wallaay wax naa la fi ne la ñett yi defaru mbokk benn bu ci sax karaw ci muy làmmiñ sa mbokk waxal ci moom lu rafet loo man ragal ko ginnaaw fu mu nekkul maa la ko wax bu jëree nga futteeku xeex nga futteeku xeex ba pare bu ko nettali dëgg tenqul ndeyjoor lii mm. du sax karaw mm. loo ko mën a dimbalee dimbalee ko ko te yàlla tax mais bul ko jënd ndax gor amul prix mm. ndëggul tànk du sax karaw boo ko mënee dëgg ko dem doxale ko ci lu baax defal ko ci lu baax dee ko dem di ko seeteeg di ko yëg mais malheureusement ay mbokk Sénégal xam nga booy waxtaanee tem day dem ba day génne ay suuteem yoo xam ne mm-hmm. day dugg ci leneen mbokk Sénégal dañuy am dara as tuut yaakaar ne yow dañ laa war a jënd Ah. fàtte nañ ne yow fa nga taxanee fa lañ fortaatoo fàtte nañ ne yow la leen tax a duy ba fees moo la tax ne deng dengeeral gor su gëm yàlla dara du ko jënd dara du ko jënd ndax ngëm yàlla mooy lépp damay woote campénal am sama cousin bu ne daf may defal te duma ko gërëm te mi ngi defal ñeneen ñu koy gërëm ma ne kam ko wax boo demee ne ko na tëye terangaam ma commencé torox bis ni ki tey man gor laa ala ala torox man gor laa kenn du ma jënd bu doon mari camara mu ne la ala torox déedéet waaye xam nga wax da koy waxee na demee ma ne ko boo demee nga ne ko man kenn du ma jënd ña muy defal ay million di leen may kaat kaat di leen yóbbu màkk ak di leen yóbbu feneen na dem ñooñu gërëm ko man li may jox lekkuma ko dama koy yët ay jaami yàlla yoo xam ne fa ñu nekk joobul kenn ndax ku xamoon ne boo faloo ba follee ko jaar fa boo faloo booy dem ak ñëw jëndal leen eau de Javel ak omo c'est-à-dire nañu bàyyi di jënd sa mbokk ngiruk fal nañu bàyyi di jënd sa mbokk ngir sa poos mbokk kenn du ko tuutal mbokk kenn du ko toroxal mhm. ki wopp nga mën koo faj sa mbokk mi nga mën a dimbali ci vingt mille francs dimbali woo ko mu dee nga yóbbu fa un million ne la wóor na yaa ko rey buñ ko autopsie woon sa deret la ñuy gis muy daw ci yaram <laughs> te te mami xëy na sax du thème bi mais damay dee wax dara ak samay ay xarit ak yooyu ma ni bu nu complexé ci kanamu ay titre mhm. nañu ànd rek ànd gu naturel bu rafet ñu soppante te yàlla tax bu dee appellation la ak dana xëy bés dootu ko am nit ki su doonatulee eh, diw boobu ñu ko doon wooye nooy def ak moom. baal ma alma sa big bi noonu la. il faut ñu comporter wu naturel naturellement bañ a complexé. gis nga bu fekkente ne appellation yi ngay wax. waaw bu dee président la fi fal. biig bam la fale ah. encre ba jeexagul moom la teg di xaar sa bis bu rafet ñëw mu folli la ca bu la ca follee nag su fekkee man ma ñàkk ngor mm. wala ma ñàkk xam sama bopp ba jaay la sama bopp boo dellu see ma torox ba ne tootu ànd ak yow ànd mm-hmm. boo gis nañ ci waxante dëgg te yàlla rek waxante dëgg te gis yàlla moo fi ne ndoy baan gis nga kuy ñaan yàlla lay gis nga soo soo soo soo soo dee soo yoree ay doomu baay dafa loo leen mm-hmm. yaa ngi ànd ak ay nit yoo xam ne ñu ngi yor seeni doomu baay di leen oh. toppatoo dëgg la man de Ndoye Bane lu ma naar yàlla ma naar a may te duma ko bokk ak waa Pire ak waa Derkele bu ma ko yàlla may bugguma ko ñu suñu yaay Zahra Bitar waaw man xam ne yàlla nar na ma ko may mm-hmm. te duma ko bokk samay mbokk mm-hmm. ko ma yàlla may bokk na ci koy ñaan waaw waaw yow su loolu su dee yow kese la mm-hmm. yàlla mën na yow kese cinquante mille doy na la di nga wut su ndaw dugg fa tëdd yow kese te te ndoy baan yàllaa nga gaaw euh, bu nit amee seetlu rek gisal ka nga xam ne dañu koy wooye milliardaire exemple bu basique rek la euh, ñu ne diw milliardaire la mu jal milliard am kenn dikkul di ko wax benn soxla. yaa bëgg milliard comme ni mu waxee mu jal milliard. man koppar laay wax. non man koppar la <laughs> ah, ba yow ku fi bañ koppar. <laughs> tax am ku maree ci télé ba dana ne xaalis. déedéet am naa am naa mag te mi ngi almadi. Ah, <laughs> am naa mag mi ngi almadi waaw dégg nga maa ngi doon wax ma ni bu la yàlla defee borom barke jox la koppar gu bare mhm. jox la teraanga bu bare boo ko jalee yow doo nga wéet ak moom danga xam ne lii amul amul amul maanaam am du pour yow ni ngi barkeel fi rek nit ñee ngi ñëw dina la diis soxla yi ngay joxe doom bàyyi ci waru làkkat yi nga dem ci sa boo amee pour ñoom danga war a dem ci doom bàyyi defar leen teraanga loolu la ñu xam. te gis eh nga loolu la ñu xam moo tax culture mooy mooy changer nit ci doonte nag doonte ñëpp même conception bi lañu am. ci mbir mi mooy dimbalante te yàlla saa yi nga am doomu bàyyi yoo xam ni amuñu wërsëg. ah kay day am. xoolal am nag loo xam ni. Mm-hmm. moo gën alal. wallaay baax. Mm-hmm. mën a doxag mbokk. dëgg su toogee dalay wax dëgg di la teg ci yoon. dëgg la te yorul dara. dëgg la di la xelal. Mm-hmm. di la teg ci yoon maanaam nekk sa mag. nga nar a dugg ci dooxi doona nga dem laaj ko mu. yedd la ko wax de waaw sooy takki jabar mu dem takkale la. rafet na lu sooy doom su ñuy dugg néegu góor mu dem maanaam de nga am doom bàyyi boo xam da lay taxawu. loo jaaxle mu ñëw. loo jaaxle mu ñëw problème bu am li ma doon waaj a wax ci wolof loolu moo gën a million. a neex na ba dee. yooyu doom bàyyi li ma doon waaj a wax ci baat wolof moom la ma doy tekki. loolu dafa riche xam nga ki kook doy. buñ la joxee leget buñ la joxee leget dañ laa séddale loo dafa am ñoo xamante ne ni seen wërsëg moo jaar ci sa loxo. xanaa xamoo ne nit ki may la nga ne ko jërëjëf sax dalaa neex ak di rafetal rek sa wërsëg moo fanaan ca loxoom bu ca fanaanul woon alaa kulli xaal su ko bëggee du la ko jox. mbaa du ko boole ci ay facteurs am. da ko cee boole. Mhm. boole la ci wërsëgam. mu mu daan la ko jox yi daan indi waaw kay mi ngi noonu. dafa ñoo xam ne yàlla daf leen a séddale loo tax mu jox leen lim leen jox. dëgg la mais am na ci ñoo xamante ne nag ñoom bi leen yàlla séddale loo. Mm. ñoom dañu ne ñoom xaaral ma ridiculiser ñi ma bokkal ñëpp toog ci seen kaw damaa war di yónnee ñuy daw ndooy dafa wax lu am solo mooy doomu baay bi nga xamante ne booy takk jabar mu ñëw taxaw mm-hmm. booy tudd mu ñëw taxaw mm-hmm. bu sa kër la jee mu ñëw taxaw macha allah boo bu la ñëpp dee jay mu ñëw wax la dëgg mais est que xam nga doomu baay jooju du am musa am accès ci yow bu dee doomu ndey la doomu ndey jooju du gaa am accès ci yow mm-hmm. da nga koy daw comme koy daw lu ñuy uh, tooñ jëlal téléphone dellu si salaamaaleykum wa allo allo maaleykum salaam euh, maa ngi leen di nuyu ñëpp di leen ziar. ñu ngi lay fay te lay delloo ziar. Euh, bii mooy première fois ma woote ci këram. Euh, yaakaar naa ko. Mhm. mën naa ne peut-être pas seetaan ay yore sax aw ko woon. Mhm. mais yàlla daan na tàmbalee tey ci seen sam bi. lu bëri nag ñu ngi ak seen doomu baay dara waralu ko lu dul. seen uh-huh. yaay man mii di wax ak yéen gën uh-huh. a juddoo sama mag juddoo ko ñu dëkkoon fa ak sama papa ak sama yaay uh-huh. sama papa ba mu ñëw ba dugg génn ñu est-ce que bi ba tey jii yàlla doyal ñu am fu ñu mën a dëkk ak ñu bëri yoo xamante ne si lépp waaye bëri na bëgg leen ko di seen liggéeyaay. ndax tey jii nga nekk ci bërëb ak say mag ak say rakk dëkk fa ak sa laaj nga fexe xëy ba tax génn am benn nit ñi nga taxaw dëgg ci ñëw ci kër googu noonu loolu ma bind koy aw ma lu xaw ma. mais métti na trop trop tey jii yàlla bu lay suturaal bu lay suturaal su ma wax bi damaa bëgg lii delloo si seen xel ci yàlla. dégg bi yombul. am na loo xamante ni jar ko. alalu àdduna jarul bàyyi kër gi. déedéet jar ko. alalu àdduna bàyyi bàyyi bi ñu delloo si ak seen xel ci yàlla. xale yu bëri nañ ko dëkk bi di gis nekk dara tegu leen ko lu dul xam waaye alhamdulilah rabbil alamin ba nga xamante ni ñun suñu tànta loolu ñu def xooluñu ko. macha allah ñu ngi ñu déggante ñu ngi nekk ci jàmm ndax xam nañ ni tey la moom la ñu am tey naka di def. waaye ñun ñu ngi déggante ci jàmm ak salaam. ñu ngi demalante ñu ngi dikkalante. tey jii kooku defoon loolu moom moo moo ñaaw waaye ñun ñii xale ñu ngi demalante ñu ngi dikkalante ñu ngi déggante ci jàmm ak salaam. na ñu ngi dellu si waat seen xel si yàlla xam ne àdduna dafa jeex ba pare. man ñu ngi wax ak de dana wéy noonu sax waaye am na lu gën a si nekk de bu ba tax na lu bëri lu tax lu ma ci mën a dugal dama koy naan déedéet aw ma aw ma jot boobu aw ma jot di xaajale aw ma jot di teewere mu nekk àndaar ba nekk ak seen xel si yàlla xam ne àdduna bi jeex na ba pare. maa ngi leen di gërëm nag bu baax a baax parce que tey jii seen thème bi dafa am ci solo soo xamante ni yóbbu dama ko yàlla xam na ni mosuñu woote ci télé au moins tax dem toog di seetaan xëy na tey yàlla dina ci yamale mais man mi lii ko sama télémassage ndax tey jii li ñu li ñu noonu am na lu ñu doon demee dañuy am benn envers suñu doomu baay waaye xëy yàlla mooy dafa soxal rek koy dañ waaw loolu daal nag soxla woon naa la ci benn saa boo xamante ni daf ma xaw a naa la ko waxaale bu fekkee mën naa am sa jàppale mhm. a baax na baax na incha allah. macha allah macha allah. c'est mais nag euh, li may wax la rek saa su ne am na situation boo xam ne bu la ca yàlla defee. Mhm. maanaam ñu lay mami ñu lay def ak ngay defaate. Mhm. nañ la def sax. ndax bu ëllëgee nga am euh, nga am yool nga am ndimbalul suñu borom àdduna lii rek moo fi nekk boo defewul mm. dañ lay def soo joxewul dañ lay jox mm. boo boo joxewul yaay mm. laaji mm-hmm. boo defewul ñu def la mm, fan nga bëgg a féete kon lu ci mën di doon mm. yow jéem a la féete ci côté bu baax bi rek bàyyi féete feneen fi di la dëgg la dëgg la sois fort tey def li ngay def mm-hmm. te dox sa dox jël zénitude man dama bëgg zénitude mm-hmm. ndoy baan voilà zénitude amul jëg de dégg mën la def li def. te dox sa dox bu ci yokk wax ju bari. te dox sa dox. dañoo nekk ci réew moo xam ne. soo defee ñu wax. soo deful ñu wax. Mhm. defal li ngay def te dox sa dox. très bien dafa am ay ay doomu baay yoo xam ni. après doo ànd ak bojo bojo. non non loolu soo ko defee doo am temps bojo bojo yi. d'accord très bien. dégg nga dafa am ay doomu Youssou amee ku nekk ci ligne bi rek may ko chance mu dugg. voilà dafa euh, doomu baay yu wëyu. yu wëyu yu wëyu ay bandi yu nekk ci kër gi. <laughs> ci ah. waaw ci kër gi fii. mu ne. yi eh, naan njëkk yi góor yi daan naa la ko wax. njëkk yu yi njëkk yu góor yi. Mm, ñoo gën a sadik ñëpp. war a niroog neex a dëkkal. ma ngi gis benn femme boo xam ni. benn tegal loxo ci njëkk yu góor yi dalal ki ci ligne bi. ñooy doom bàyyi rek. allo tey dafa yaru ba jaaxal. allo ba jaaxal ma na ngeen def waay. ñu yàlla bu baax. jaajëf waay jaajëf. ana waa kër gi. ñu ngi sant bu baax ñu ngi sant bu baax. waaw man dama doon wax ci affaire yi ci thème bi. waaw. dama ne loolu. lépp ci ndey yi la rek. ndey waay jigéen ñi kay ñooma ndooy waaw. gone yi ba ñu judd xamuñu dara. ñooma de. dañoo màgg seen ndey nettali leen lu ñu leen wut a nettali. lu lu lu jiitu seen i dund bu ko defee seen xol yi bon ñuy am ay rancune. Mm, dëgg la bu doon bu la de li may wax Mara Fall ak oustaz Dieye. waaw ak Pape Anne ne la ne ko gàmm na gàmm gi. macha allah wax na dëgg <laughs> xale yoo xam ne dañ leen di nett loo xam ne lu jiitu seen judd. Ah. li nga doon nettali laa bëgg ta dog boo paree nag ñu ñëw ci ndey yi parce que tam voilà léegi njëkk yu ah. góor yi da ngay gis benn famille boo xam ne famille yoo xam ne tey jii mhm. taawu baay ba mooy baay waaw ñëpp bàyyi ko fa dem tukki waa ñëpp bàyyi ko fa dem tukki. Oh, waaw moom mu nekk fa yàlla mayu ko oh. wërsëg. moom moo nekk ci kër gi. Mm-hmm. di gérer di maanaam mooy gérer ko liggéey moom nga yónnee sa xaalis mu mm-hmm. tabaxal la. Mm-hmm. moo lay takkal jabar et tout. mais mais bii ma ci gis nag dafa doy waar. doomu baay bi moo nekk ci biir kër gi mooy taaw mhm. rakk yi ñii ci ñëpp tas nañ ñii tukki nañu ñii ngi Dakar ñii ngi Italie ñii ngi France mhm. ñii ngi ci sous région bi et mais moom moo fa nekk kuy tabax moo lay tabaxal mhm. kuy takk moo lay takkali moom mi ngi ci benn benn kër ci këru rakk yi doomu baay ak jabaram ak ñaari jeeg wala ñetti jeeg mais xoolal toj na kër ga ba am caag kenn doom da koy nga ni déggoo ma de seen doomu baay bi nga xam ne mm-hmm. mooy seen taawu papa mm-hmm. mooy seen kilifa mm-hmm. moom la ñuy yónni xaalis moo leen di takkal jabar di leen tabaxal kër di leen defal lépp am na ci kër goo xam na nag la dëkk ak quelque jeeg jabaru rakk yi quoi mais rajaxe na kër ga ba am ca kenn doom te kam amal doom ndaw sam amal doom moo may nettali de nee na ma ba léegi sama jëkkër xamul ni magam bu góor bii bawam baayam bi moo jur doom ji parce que dañ koo nekk di nëpp nëppal moom ñem wut a wax su waxee say mën naa tas tas famille bi waa jaa ngi koy topp toujours naan ku suturaal mu suturaal bul ko wax waxal rek ñu jiin ko keneen ku la ëmbal waaw dañ koo jiin keneen ku la ëmbal mu ni kooku ki ma ëmbal bi fii leen xamante woon euh, nekkatul fa mu fa mu luyoon tuxu na fa noonu lañ ko jàppee suba après après émission bi naa la woon sa woon sama portable ni ma ko tuddee sama sama sama sama magu jëkkër moo ma moo ma ëmbal noonu laa ko bindee sama portable doom jàng ca kër gay daagu jëkkër ja fasewu ko parce que dañoo nekk ci ay lijjanti kan mooy papay xale bi mujj na sax jëkkër ja accepté ne ni am ca accepté na ko ci ci buumam la juddoo mm-hmm. ndaw sànq ci biir kër ga waa ko ku ko def mag ma ngi ci biir doom baay bi ku ko def ma ngi ci biir kër ga léeg-léeg sax ak ci ñàkk joomam ndaw see may nette de yenn saa yi mu tëdd bu guddi ñëpp tëdd mu koy fëggaat te loolu lu ko gën a garaaw kër yi dañoo xumb li xew ci biir kër yi su génnee bo mën la bomb bomb bomb la boo xam ne su su explosé fii. 313 nee na ma euh, <laughs> Moustapha Mbaye ñu ngi lay nuyu. 313 mhm. nee na li ko naqadi mooy li mu toogul ci plateau bi ndax moom témoignage yi mu am ci doomu baay bu ko doon wax fii ba suba. Mm. nee na du jeex du jeex du kër yi dañoo xumb. kër yi dañoo xumb parce que xoolal lool rek sa mag bu góor nga bàyyi ko sa biir kër tabax kër ba mu rafet dugal ko fa mu dugal fa jabaram. nga dugal fa sa jabar say rakk dugal fa seen jabar mu topp sa jabaroo rakk yëpp di raatale moom doo ngay góor ci kër ga. di encaisser sa xaalis di mooy encaisser sa xaalis yaa ko yónnee dépense moom daal deful dara lu dul gere xaalis bi ngeen di yónnee tabaxal leen di kër takkale leen di jabar ngénte leen seen doom mais am na doom yoo xam ne ñu koy ngénte ay doomam lay ngénte noon de. ci ngóor bës man xaw ma ndax ndoy baan dama koy dugal ci paquet di ko génne. li ma la wax nii léegi saa di yëndu ak maa xam ne dëgg la. pour man yow gis nga jigéen ñi xam naa ne dëgg la. góor ñi ñoo dul xam mais gis nga jigéen ñi suñu la nettalee. léegi li am ci kër yi. ci sa kër. <laughs> gis nga jigéen ñi nekk ci buntu télé yeeg buntu rajo yi koo ci tëjool ba mu nettali la ba wan la da nga da lii amul ci biir kër yi mais kër yi biir kër yaa ngi toj mais soo amee sa soo dee nag soo soo dee kilifa doon mag doon taaw say frère bàyyi la ci kër tabax kër dugal la fa nga dugal fa sa doom fayoo courant fayoo ndox joxewoo dépense lépp say rakka la ko gàddu soo amee jom war ngaa jom ma def yenn yi nag xam nga moo tax euh, Ndoye Bane may wax rek ma ni euh, bu nu gaaw a àtte diggante yi dem tribunal sax la ñuy dem juge ba soltoojam toog di àtte ak àtte bi am lënc lënc sàkkat mag ñun ñi nga xam ne nitu kese la ñu nii rek mm-hmm. ñuy dox ci dëkk bi di dox suñu ay mm-hmm. soxla li ngay bés bu nekk na xam nga ne nit dana ñëw kalaame la kalaame boo xam ne bi mu ñëwee di ko def. Mhm. moom mi ñëw sol ay dàllam dikk ba ci yaw moo tooñ. waaw xam ngeen loolu. day am day dikk am fit nag. yi nee naa nee nañu sama sama benn sëriñ ñu ko doon wax ndeysaan sunu kilifa. Mhm. nee na booy xuloo na nga fexe ba bul xuloo koo xam ne gëmul yàlla. dëgg la ki gëmul yàlla wax lu ko neex. daf koy mhm. yomb fabriqué da koy yomb sof da koy yomb. te saa bu xëyee gën a ñeme. xuloo sax moom xuloo la moom. dëgg la moom xuloo moom. caa rafet moom ku la ah, waxante la waaye déet mën ngaa xuloo teg ko ci chart wi leer. du xuloo amul charte. ah déet. xuloo xam nga bu ñu waxee. xuloo bu nu waxee xuloo maanaam dafa am mbir mu am te d'accordu leen ci. waaw. nee nañu xuloo bu mënta dindi yabel nan ko baay parce que day mel ni tey ñu ne danga bëgg a jàmm danga bëgg a bëgg a jàmm. lii il faut ñu àtte ko faaw mu am mbir mu yëngatu ba ñu lijjanti ko ba noppi ñu séparé nag jox ki nga xam ne moo ne ci ci dëgg-dëgg jox keneen ki leneen li mu jël. bu daanee dem yoon ma ndax ndax dégg ngeen. xam mais xam nga malheureusement Sénégal léegi xamatuñ ko tooñ ko fayu lañ xam. c'est ça. Hmm. man fi mu ne Sénégal léegi di di dox di fayoo ma dàqal di tooñ man fi ne damay préféré di di bañ a tooñ waaye nag xam nga bu fekkoon te ma ñamal la daal mhm. bés boo toogee ba ne pat mhm. fayu fekku la ca mhm. noflaay ga ngay nekkee doo ko mën a wax ndax ma mi suñu ko quotidien dafa metti bor yee ngi fi soxla yee ngi fi yooyu yëpp nga narkaa saafara àndul ak leneen xam nga man <laughs> nee naa la nee naa la nee depuis ay temps yi ci ginnaaw ba léegi waaw dama cee jël bu mat cest à man damay jël art nationale bi àbb ko monsieur Matar Ba lokk ko ci sama droite jël arena Dakar arena bi def ci gauche bi. après ñu ne déedéet waaye may xaar train bu bees bi def ko ci digg bi. naka léegi loolu yëpp loo ci jubal soo ko boolee fooy waxee patt rek ngay mën a def. ca boole tuuti ndox mu sedd ak sant yàlla alhamdulilah mi ngi may xamal ni waxtu bi waxtu bi léegi mu jot moom de dafay teel a signalé nee na waxtu bi jot na mais mais ànd ak lu mën ci am daal wax dëgg yàlla mbir yu doy na waar dinañu gërëm tamit ak wax dëgg yàlla Euh, ndokkeel ñenn ñi ndokkele leen encouragé leen mm-hmm. parce que seen kër yi bu bu sancoo bàyyi dëddu ñëpp nekk ci jàmm wax dëgg yàlla seen loxo la jaar ah yàgg yàgg nag da ngeen di fekk ji bàyyi di dem fekk ji nit ki ci tëraayam bu sedd boobu ngay dem ak gàcce yal nañ ci yàlla mu musal am na ñoo xam ne mam yi ay goru yàlla yoo xam ne tey boo leen noon tepp tepp ne leen jugal nan dem ñu ne la nan dem pare nañu ndax seen jukko la ñu defar seen toogaay la ñu defar namu ñu daraay kenn macha allah am na ci doomu baay yoo xam ne itam fi mu ne nii ñooy seen taawu baay yàlla may wërsëg seeni rakk mm-hmm. keroog ba ñu jógee màkka nga leen commencé gis ñu mel ne ko quoi chocoor quacheur koor bi woon. waaw ah, dara jotu leen. yéeg la. nga gis leen ñu ta seen i rakk tabaxal leen kër. ñu dëkk ca du yàgg dara nga gis leen ñu commencé di yooy di yooy di yooy ba yàgg ñu ne yaasal jalaali lu xew ñu ne soxna saa ngay muuru ah. gàccaa ko rey boo demee ca bàmmeel bi da gis bàmmeel bi di neewi di dama lay porté dama koy dàq ba dama koy dàq ba noppi porté ko plainte c'est parce que mérité wul billet bi ñu ko jox tey jii ma nekk xale nekk mm. étudiant mm-hmm. am sama doomu bàyyi mu am kër ndakaaru bu a ci dossier boobu waay maam bag war a ñëw dakaar aw ma fu ma nekk ma war a dal sama kër doomu baay mu am place. am fa coono bu metti ma am fa coono. wala sama ah, doomu baay bi dàq ne ma doo reer boo tardee doo añ. Hmm. kër gi nag na courant bi ne gaañ ñëpp di taali kilim ay doomam mais ventilo sax ñeme woo ko taal mais ma mi ne la subaana ma jeeg bu bon. voilà ndax am na jeeg boo xam ne mi ngi ci biir kër. am dépense amul dépense mbokk bu ñëw mu jàppale la. dama doon wax ma ni am na ñoo xam ne dañu war sant yàlla. ndax xam nga li tax ndoy baan bu la yàlla defee nga mel ne nii da nga ci sant yàlla macha allah ñun ñëpp nag bu ñu yeewoo yàlla may nañu chance pour que ñu cultiver lu baax. pour que ñu xool li gën a rafet ñu koy def. Mm. yàlla bu ñu dem ci côté bu safaanu. mais nag mais nag ndax da koy def amuloo ci benn rendement. mais nag am na doom baay yoo xam ne tamit dañuy dem moytu di toon gis ndoy baan nii rek. Mm. nga di ndoy baan ñàkkul dara bëgg koo teg lu mu mënul. Mm-hmm. teg ko lu mu mënu mm-hmm. nga wax ma lu ma mënul man na mënuma ko. ngay wër di yàq sa yàq yàq sama der bi mhm. fekk li ma teg mënuma ko xam nga dafa am ñaar yu yàqub ànd yamu rek ci doom baay mhm. tàggat su ma la ko defee yow mii mu yàq suñu ànd su ma la tegee loo mën nga gàntu ko mhm. day yàq suñu ànd su ma la tegee loo mënut itam day yàq suñu ànd dañuy tegee lu ñu mën delluwaat di tàgguwaat waa Sénégal gépp di leen wax ne kenn gënu leen Mama Kinoushka moo jaar ci sañse bi gis nga maa ngi noppi woon rek far seede yu rafet yi génn fi kon yow yaa bu yàgg ngaa def lu baax ah, delluwaat nag di wax ne nday kan sama rakk ji moo jaar ci bopp bi mi ngi ci 77 488 10 15 woo leen ko mu defal leen ci yu baax yooyu di dellu di wax ne ministre Mariama Sarr nga jàppee moom laa jëlantee Mariama Mariama moom moo moom mooy mooy moo kii rek sol mbubb yi rafet yeeg waaw musóor yi rafet mhm. macha allah xam nañ ko ajaratu Madeleine Diagne ñu ngi koy nuyu a Yaxya Ja di ko ñaanal yàlla dolli ko jàmm yàlla may ko fan yu gudd mu ànd ak wér kooku nag bu ma ko waxee xel dafay dem ci ajaratu Fat si da baax yaayu xalimatu sunu xarit yooyu noo ngeen nuyu soxna xalimatu man nag lu ngeen xam ci kuy utal sëriñam borom kër mën na ne naa ko boo raxoon sa sant bi boole ci Traoré dana gën a yomb. Ah, non non jaay ci ay ca la rek. addiye nga ko yor mën ngaa jël soxna jox ko sa sa sëriñ. addiya ah? addiya la soxna kooku day day mbokkam di nijaayam. jege waaw addiya la rek baax na. loolu kër gi fii laay seet kana ci kii rek. non dagal kër la jox liste. sant di gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi doon uh, seetaan rek. Hmm. Uh, sama xarit ba may Maimouna Bouo Diagne ba léegi ñu ngi koy yor feeñagul ku ko gis rek nag ma ko wan madame Derviche <laughs> ñu ngi koy ziar bu baax a baax ma madame Derviche ak madame Dioum Aïcha kase hmm. di jaar ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi leen di seetaan rek tey sant bu baax a baax a baax. macha allah sant yàgg Euh, Mami Linguère waaw xanaa sama nijaay bàyyi compte ba nga xamante ne wax dëgg yàlla day bañ ko ko tudd ci télé mm. waaye boo duggee këram man de dem naa këram ay lu tolloog ay xanaa atu yàlla mënuma xàmmee doom yi kan moo ci yaayu kii muy Adja Sala ak Aïcha kon ñoom ñëpp ñu ngi leen di jox seen wàcc waaye wax dëgg yàlla di leen wax ni seen ànd rafet na yéen tàqaliwu leen kenn waaye sama nijaay loolu rek nga mérité Eva dellu di la laajaat noo sànnee jam ra ca jër a ngeen jëf mbox mbokki téléspectateurs yi dama leen di yëgal ne décret la bu may bu may kile fu ñu leen waxee ngeen sarax tooñkat jël leen sarax sa indil ko mami Linguère ci biir TFM maa ngi remercier bu baax a baax madame Seck di Boor ma nga nekk ci 77 963 67 96 77 963 67 96 bu ngeen fa demee dana leen jox ci chemise yi rafet yi nee naa daal kër yi nga xam ne dañu am jàmm yàlla na fa yàlla dolli jàmm kër yi nga xam ne dafa lëj ba doomu aadama bi xalaat ne kenn mënees koo defar yàlla na yàlla dikk dikk bu gaaw te mu sax macha allah bu ko defee ñépp nekk ci jàmm ñu ngi koy ñaanal sunu ay njiit di ko ñaanal sunu ay soppe di ko ñaanal sénégalais boo xam ne sa xel yépp a ngi Sénégal maanaam yaa ngi nekk à moo xam foo mënti féete macha allah ngi lay jox sa cër bu baax a baax. Mhm. di remercier Béya Coiffure ne ko merci pour la coiffure ah, dañ leen di wax à demain allah allahu taala jërë ngeen jëf.